you

mooy ki koy wéyale mooy ki koy ful mooy ki koy yokk mooy ki koy yéwénal loolu tax dinaa jàlle léegi ma présenté leen ana ñan ñoo teew fii si mbooloo mi wala ma sax jox élage pour mu wax leen ñan ñooy ñi nga xam ne tew teew fii ci plateforme yi ci parti yi ci mouvement yi ba pare ñu soog jàll ci beneen poñ bi muy ci discours yi ak muy ci mise en place officielle bu comité électoral bu Anne Belair comme ni ko le président Macky Sall santaane won suñu kilifa gi dee moo nañu won ci lettre circulaire nañ ko teg gën gaa yag le 28 janvier kilifa yi nekk ci département bi sas ñu jox ñu instruction tënk ñu si au plus tard le 21 muy bëss bi ñu nekk tay

di nuyu aussi euh, sama camarade bi nga xamantene ño ñoo euh, euh liggéey bi muy mon frère Assane Diaye donc comme niko ko Abdoulaye Diouf waxee rek euh, dañoo tollu ci étape présentation bi nga xamantene moy les entités manam parti nga xamantene mo moo a composer le futur comité ak mouvement yi nga xamantene ño fi tew ak euh, plateforme yi nga xamante ne ñoo fi euh, Donc, donc vais commencer par euh, le parti PS mu ngi fi le parti AFP ñu ngi fi le parti MPD Ligue ñu ngi fi teew donc le parti avec le mouvement avec ñu ngi fi. le parti PSD Djantibi, Mungifi fi eh, Théo RDL Yessel mu le parti Bës Mungifi. le parti APR mungifi, le mouvement Razan Yoninafi représentant le mouvement Sunubir mungifi, Théo, le mouvement Sigidobna. Mungi mouvement le mouvement Dekkal Yakar. Euh, la causeur ngi le mouvement Clé de l'émergence ñu ngi le plateforme Ande feddali And ak askan bi le plateforme internationale Andou fal Amadou Nous le mouvement COSECAR Nous ngi le mouvement Ramadan le mouvement 2024 Nous ngi ah, Je euh jërëjëf ci nii nga suñu parti suñu plateforme ak suñu mouvement Merci beaucoup. Merci Mamadou Guissé soyez bienvenue. ah mu nekk koo xam ne taxawaayam ci taxawaayam ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar bu Hann Bel-Air ñëpp gis nañ ko te rafetlu ko ah dalal ak jàmm. daa suñu sër yi waaye góor yàlla yaa ngi ci jotaay gi waaw ku ci mel ni Dage euh, Ousmane Faye waaw suñu grand Mamadou Guissé suñu grand Famara waaw suñu xarit yeeg suñu walëri yi ñoom Kader ah sama gars yi ñoom Arona ñoom monsieur Kane Souleymane ah Kulim Dioum waaw ñoom Mbengue sant nañu bu baax Ousseynou Ndiaye bégg nañ gars yi yëpp sage yi papa bégg nañ bu baax a baax kon loolu dañ si joggi euh, ñu jàll si la res la res nag mooy dañoo bëgg jox kàddu ñenn rek ci mbooloo mi ñu waxtaane li nga xam ne moo ñu fi indi ci kaw loolu danañ jox kàddu d'abord Ousseynou Ndiaye man la Ousseynou Ndiaye du ma sori euh, représentant COJER Hann Bel-Air nous avons ko convergence des jeunes républicains dans bel donc mais nous ñu fi nous xam différents entités qui euh, passer la parole juste pour que nous puissions le plus rapidement possible je pense que je ngi nous képp PS pour ak ak yi fi des yëpp pour après ñu dajaloo mën a mëne la combat comme niñ ko waxee sànq combat bi waruñ fi des ginnaaw ñun ñoo ko war a jiite jërë ngeen jëf merci beaucoup. daal di jëmm ju ràññeeku ci parti bi ak ci coalition bi xam naa nag dafaa bëggoon jommal keroog réunion départementale nit di wax mu ne ma Ibrahima Sow kii mooy ma rëy Ablaye yow sama wanul jëmm yi du ma la koy wan kooku lañuy jox teg ci ginnaaw ma Mamadou Guissé mu nekk son suppléant ci lépp lu jëm ci mbirum mandataire di yéeg ak wàcc bu loolu weesoo am nañ nag ay pôle pôle yi nag ay kuréel yu ubbeeku la ndem du ñàkk kenn ku ñu ne yaa koy coordonné yaa koy yaa koy jiite pôle yi nag dafa ubbeeku dara ñu wax nag ñan lañ jàppoon ne mën nañ ñu ko doxalool ak ñenn ñi jot wax ne mën nañu ànd ak liggéey waaye képp koo xam ne jàpp nga ne mën nga liggéey ci biir pôle yooyu liggéey bi mi ngi fi. ne ku nekk bindu ci pôle ba nga yaakaar te ànd ak kam ñu la fa dénk nga ànd moom nga liggéey ngir jëriñ bureau bi bu loolu weesoo am pôle secrétariat général ñu dénk ko suñu xarit Assane Ndiaye nag moom ci liggéey bi suñu sœur Matiba bu yaraax bu loolu weesoo ah maam pôle bu ñu tuddee pôle finance muy trésorerie ah, ñu dénk ma ko muy seen serviteur bu bu bu modeste bi donc di Mamadou Ibrahima Sow jërëjëf di ci ànd aussi yaa Zayda comptable du ci ànd suñu yaay Fatou Cissé ñu war a ànd liggéey ci loolu pôle programme et contre programme lan lan la ñu nat lan lañu mbébét ngir réew mi kan moom ñu koy faram jël di ko dugal ci mbooloo mi muy suñu mag saalif Sow ah loolu weesoo nag ñëw si pôle sécurité ku romb tey béréb bi ba ngi dugg ba fa ba bi nga yegg si fii xam ne tey kaaraange am na fi waaye ñu gërëmee ko euh, simb di Abdou Ñaan moom lañ ko jox kon simb mbooloo mi dénk nañ la nag lépp luy sécurité ndax tey la ñu wan xel dal la ci sa liggéey rafet na euh, dana ci ànd ak képp kum jàpp ne rek mën na ànd ak moom liggéey ci loolu

jërëjëf tey da tey damaa sàllaaloo sa tur waaye yow maam Bousso rek laa lay wooyee si ndigalu si ndigalu Serigne Saliou euh, bu loolu weesoo ñu dem nag pôle digital xam ngeen ne communication léegi téléphone a ko yor TikTok a ko yor Facebook a ko yor WhatsApp a ko yor ñu def ko fi tey ah dénk ko sama naataango waaw sama xarit sama <laughs> ma rak euh, voilà Ibra euh, Ibrahima Ndione Ibrahima Ndione mii lañu jox mu coordonner lolu wa lo xam set na lol ñi ñi sant ko baax ci liggey bi mi ngi ci def ah liggéey boobu dana ci ànd ak doomu ndeyam Talla Diouf dana ci ànd ak aussi Sengane sec Sengane sec bu Maris ak kep ko xamne japp nga ne ci ga yoy am nga ci xarañte go ci mëna and ak ñom te lolou ñu ci soñat bu baax. suñu gaay yi communication ah si ñu ngi leen ci sañaat bu baax pour ngeen japp ci liggéey boobu lu am solo la waaw bu loolu wesso ici ñu am mobilisation et animation pôle boobu ñu koy jox mam yassine Seck di ci boole nag commission la qui di Ramabar Monsieur, sœur sœur Tabara Ndiaye du ci boole du ci boole euh, Ndeye Juma Ndiaye du ci boole donc Ndeye Khady Ndeye Khady Ndiaye suñu sœur du ci boole it Ndeye Juma Ndeye Juma euh, Diop du ci boole aussi ayda Gueye ñooñu lañ fa boole ñu am maintenant pôle diaspora ñu am suñu pôle diaspora mooy ñu war a jokkook suñu mbokk yi nekk bitim réew te war a soññ seen bopp soññ seen i wéjur ak seen i mbokk ngir ñu watale ñu Joko nak suñu frère malik kan malik kan bu sét Genève bien lool nak suñu mag di Mamadou Guissé ci woyofam nee day laré fep kon da ci and ak mom ndax mom ku né xam na ne diaspora la joggé fecc suñu néna na katanam dana ko ci and ak mom dana ko ci gungé ba lañ ci bëgg ñu am ko ci ñoom nag pôle organisation et logistique pôle boobu ñu ne suñu rakk maam di ndaw moo koy jiite sonar ngoom ci ànd moom ak mama Diall ak Mbéri Sall amet Ndaw ak Basirou Ndiaye yéen la dénk lépp lu jëm ci logistique buñ ci jógee euh, ak ak Ousseynou Sala ak Ousseynou salaa Maris waaw euh, ñu ñëw maintenant si pôle genes mbirum ndaw yi ah ndaw yi nag dafa borom muy borom ko gère Ousseynou Ndiaye moom frère yow lañ dénk ndaw yi Hann bel yi Ousseynou Ndiaye du ko bien euh, ñu boole ci it suñu rakk Ramatulaay ak Arona Si mhm. Arona Si ginnaaw Arona Si it suñu sœur Fatimata Diak ñooñu lañ ko dénk waaye di wax ni pôle la képp ku fi am jeunesse wala jeune bu fi nekk bu yaakaar ne mën na ci liggéey nañu ànd def benn kuréel gu rëy ñu ànd ak ñii ñu liggéey ba ci Missine sàll mii nee na Missine Faye donc mu ngi ci loolu képp kuy jeune rek fekk sil Ousseynou Ndiaye fekk sil Diak fekk sil Arona ngeen ànd ak ci loolu ngeen liggéey fekk si it bu loolu weesoo ñu am euh, pôle femme pôle femme yi nag muy si jigéen ñi suñu yaay baax yi ah ñu dénk ko yaa Zeyda yaa Zeyda Aysatu Sall muy mbirum jigéen ñi mu war ci ànd ak Aysata Dia war ci ànd ak faatu sàll war ci ànd ak Bintu Diak ak yeneen jigéen yi nga xam ne ñu ngi fi di liggéey ñi ràññe leen ak ñu jàpp ne war nañ ci mën a ñëw liggéey def ko si may sañuwaat it suñu naataangoo leader yi kenn ku ci ne na jël ndawam boole ko ci kuréelu ndaw ya jël ndawam wala jigéenam boole ko ci kuréelu jigéen ña ngir li ciy dox mu mën a sont si niñ ko bëggee ñu am nag pôle sage mag ñi di leen santaat bu baax di leen gërëm di seen teewaay seen ñaan ak seen gunge ah yam nag ku ci ràññeeku ku yàgg liggéey ak ñun muy suñu grand Mbarka Touré grand Mbarka Touré dénk nañ la liggéey boobu ak suñu papa Pa Dia ak euh, suñu papa Omar Diaw ak mboolem suñuy kilifa ñoom Pa mboolem suñuy kilifa ñu boole leen ci loolu di ñuy xelal di ñuy joyanti teg si yoon loolu mooy euh, lu ñu fi tënk li ci des am na it yeneen pôle yu fi nekk yoo xam ne kat sàkku nañ ko ci mbooloo mi léegi it mooy bu ñu génnee am na pôle bi naan pôle secteur informel mooy suñu mbokku tailleur yi suñu mbokk bijoutier yi suñu mbokk commerçant yi kuréel la boo xam ne ba ngeen ko dénk ko ñu dox diggante suñu diggante ak ñooñu duñu waxtaan sàkku nañ ci mbooloo mi ku yaakaar ne mën na tee kuréel boobu mu feeñu ñu ànd ak moom liggéey ci loolu ndax wóolu nañ ñëpp mu am nag pôle société civile et privée dafa am ay nit yu baax yu nekk ci réew mi nag faruñu fenn ci politique waaye am xel mu sell mu rafet te réew mi rek tax leen jóg ñu tuddee ko société civile ñu ne ñooñee bu dee am nañu fii ci commune bi nañu ut koo xam ne moo ñuy doxal loolu ci suñu diggante ak ñoom ak nag la secteur privé moo ñii di liggéey daan doole yor seen i business bopp bu yor seen entreprise yor seen ay yëf di liggéey ñu xool koo xam ne moo ñuy moo ñu saytu loolu sàkku ne ko ci mbooloo mi ku yaakaar ne mën nga dox liggéey boobee ñu la koy laajaat nga ñëw ñu liggéey ci loolu lolu li ñu taftoon rek moy le pôle élu et autres responsables lolu nag dañ cee wax ñi nga xamné kat dañu am. ni mel dañ ko wara fessel té ñepp dañu wara dañoo ci lolu ndax xam nañu fan nañu wara a jaar xale ba waxtaan ak ñoom ba xam lan mo gën ci réew mi. kenn ku ne xam nga ko kenn ku ne am nga façon yooyu ci sa kër ci sa koñ wala fa ngay liggéey wala fa ngay waxtaane waxtaan la rek fa mu jaar ba yey ndaw yooyu war na ngaa mën a jaar ba yey ndaw yooyu wala mag ñooñee wala jigéen ñooñee kàddu soññe la ñu koy sat kenn ku ne ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax baax ndaw suñuy rakk lañu suñuy doom lañu suñuy jabaat lañu faw ñu waxtaan ak ñoom gindi leen teg leen ci raay si loolu mooy lam solo bu loolu weesoo dañuy nag jàll ci liggéey bi liggéey bi nag ko warloon tey mooy ñu monter le comité électoral bu benn bokk yaakaar bu Hann Bel-Air ngir ñu dëgmal nag élection yi ñu jëm bi élection présidentielle ñu wartee fal suñu candidat le candidat Amadou Ba dafa am kuréel bu ko war a doxal ci commune bu ne comme ni ko kilifa gi santaane te nag fii ci xarbele ñu war a fal nag kuréel bi ko war a doxal ba jox ko ndam ci jàmm ak salaam xam ngeen ne nag bu ngeen gisee gitaay bii ba ngeen xam ne liggéey bi yombul woon ñi fi toog 34 mouvement parti et plateforme bu ñu nangoo tey toog fii liggéey bi xam ngeen ne kat am beneen lii la am beneen boo ci génnee lii ci politique jeex na tàkk jeex na tàkk kon nag

What? She does. Nobody else solo de lu ñu wax dafa am solo de dafa am solo. dama doon wax ne bu loolu weesoo dafa am poste boo xam ne dafa am solo lool di jëmm joo xam ne dafa war a nekk diggante commune ak département bi ñu yëngal ci kaw du ñu wàccal ci suuf ci liggéey bii ñu nekk ñu la tuddee un mandataire ñu waxtaan ci ñu ne kooku ne dafa war a nekk jëmm joo xam ne ku xam coalition bi la ku ñu ràññee ci coalition bi la ku fa am njëriñ lool. fa liggéey la ku fa tekki la kuñ jox bopp la ñu ne loolu de suñu grand bii di Mamadou Guissé lu ñuy wax dafa am solo de lu ñuy wax dafa am solo de déglu ko lu ñuy wax dafa am ne bu loolu weesoo dafa am poste boo xam ne dafa am solo lool di jëmm joo xam ne dafa war ci kaw duñu wàccal ci suuf ci liggéey bii ñu ne kooku dafa war a nekk jëmm joo xam ne ku xam coalition bi la ku ñu ràññee ci coalition bi la. ku fa am njëriñ lool la ku fa liggéey la ku fa tekki la ku ñu jox bopp la ñu ne loolu de suñu grand bii di Mamadou Guissé ay vice coordinateur muy ay leader ay kilifa yu ànd ak ci liggéey bi am yenn ci say yi ñu ngi koy teel di ko doxal. ñu ràññee ci woon poste ñu naan vice coordinateur chargé des électeurs hors zone ñun am nañu ñoo xam ne si suñu mbooloo dañoo toxu xam nañu li leen doxal ñeneen ñi xëy na dina préféré dëkk feneen waaye dëkk ci yarax gi dëkk am beleen di fi war di wote ñu ne kon loolu foog ñu am kuréel bu koy dox kaw suuf. guddeeg bëccëg ba ca bañu bañu sot ñu ni suñu frère yi ñu Kadar gasama ñu sawr la ko fi am xol ndëgg do ko ko jox di dee sëb. loolu weesoo loolu weesoo mais aussi dana poste naan vice-coordonnateur de des partenariats et des industries ñun ñoo ne suñu commune moo yor 70 pour cent du tissu industriel du Sénégal ñu nekk fii suñu biir am nag ñu war a dox loolu ah ñu am nag ñu grand le professeur Famara Ndong boobu yàgg dina ñëw ci loolu bu jox ko juróomi liggéey bi di ko càmbar di ko nag tàmbali ba jeex ñu jox ko suñuy coordonnateur suñu suñu doyen di di di waaye nee na xolam xelam ak xadaram def na ci coalition bi def na ko ci ndaje bi loolu kàddu gu mu yóbbante la bés boobu ba léegi ñu ngi wax di ko di ko feññaliwaat ah jigéen ñi nag moo ëpp solo si mbooloo mi ci liggéey bi jigéen ñi ñu ne kenn du leen fàtte ñu ne jigéen ñi am na bos bu ñu naan vice coordonnatrice chargée des femmes loolu nag suñu yaay booy Aminata ñu ko dégg ci commune bi. qu'on a, on l'a au leader. Mais à la base, ça manque. C'est pour cela, à partir de la base, on va faire ce changement. Et le choix est là. Le choix est là. L'avenir de Anne Belair est là. mais saluer Wat dit remercier Wat engagement mais lu koy réussir yëpp duñu ñu bëggee mu réussir du lu ñuy discours mais dañ koy taxawu on l'accompagne et on le défend loolu mooy suñu avenir mais on peut pas le faire des discours di lancer nos discours alors que taxawuñu ko défendruñu ko ce sera nu tey ñun ñëpp la ñu pour wàññi ñu mais suñu gëm-gëm un engagement Moi, tax on ose nous et défendre pour l'intérêt danne belle le choix est fait et on y va inchallah Merci. Je me présente, euh, c'est Aïssa Sall, plus connu sous le nom de Yaseida, responsable à Père Commune anne belle d'accord, c'est bon. d'accord donc euh, c'est Aïssata Sall ñu gën ma xamee ci turu yaa Seyda di responsable APR un ci qui est air maa ngi nuyu ku ci nekk ak turam ak santam vraiment di rafetlu jataay bi presque mun nañu wax que toutes les solennités yo nga xam ne un homme Bel-Air un homme ko est ñu ngi fii je crois que tey bu ñu taxawee taxawaay bu taxaw fii ñun oo la mais day gagné Donc, tout d'abord, je remercie les initiateurs de cette belle assemblée. Nous pouvons dire que toutes les solennités de Anne sont représentées. Je remercie également toute la délégation qui m'accompagne. J'invite tous les mouvements de soutien à notre candidat Amodouba, de la commune de Anne de se mobiliser davantage réunir nos efforts pour une victoire éclatante au soir du 25 février. Pour ce faire, nous allons sillonner toute la contrée, toutes les familles. Nous allons, nous irons dans toutes les maisons, maison par maison, nous ñu pas le cœur. donc nous ñi daje pour ku cet effort. Même pour des cousines une 10 personnes, nous allons gagner la commune. Parce qu'on peut le faire. Anglais de yes, we can. on peut le faire. Donc, on ne peut pas des lépp ci élection parce que taxaw dafa jot candidat bi ku parce que suñu président Macky Sall nous choisir Té Macky Sall choisir ku nous choisir

ak yeneen responsable yu mel ni moom xam luy dëgg ñëw bootoo ànd booloo bëgg liggéey commune Hann Bel-Air responsable yi yéen laay njëkk a soññ balaa may waxante ak samay sœur samay frères yi nekk ci salle yéen a jug pour jàppale Macky Sall ñu brave ñoo nekk seen ginnaaw ñu am doole ñu mën a liggéey jigéen yu am jom góor yu am jom waaye dañoo mel ni yéen ndax yéen tey fi leen yàlla teg seen jom seen fulla seen dignité moo leen ko may amu leen poste nekku leen ministre nekku leen député mais li ngeen liggéey ministre liggéeyu ko fi député liggéeyu ko ci commune bi ndax am nañu ay

waaw merci jërëjëf ci la bopp dañuy politique te lu baax ku ko def dañ ko war a wax. Euh, may wax o nom de notre entité Kader moo ko jiite mu ngi tudd ñun suñu biir Sénégal ñun suñu biir Sénégal parti politique bu bees la allié de benn Bokk Yaakaar ñun ñoo fi ñëw dañoo bokk ci. affaire affaire bi parce que à la base on était à Benno mais mais créé créer mouvement créé un nouveau parti politique nous sommes désormais des alliés Amna fi fii Mbarka Touré mu fi ci mouvement bi la bok, amna Khadiloum ci mouvement bi la bok, Odile elle euh, a un mouvement Odile jógal gars yi gis la euh, dañuy travailler ak mom, elle coopère avec avec nous donc ak ñeneen ak ñeneen ñu ngi fi soxna euh, Ami Diouf mu donc ma leen ñaax di leen woo yéen ñëpp ngeen takku taxaw laxasu parce que affaire politique bi du affaire yaa fi ne yaa fi ne yaa fi ne affaire bi il faut être sur le terrain travailler tous les jours kenn du xaddi ñu gagné. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf bismillahi rahmaani rahim. jërë jëf jërëjëf ma sant yàlla julli ci Seydina Muhammad sangu sanga yi di sant sama yaay di sant sama baay. Ousmane Faye wàccoon na yéen ma waxat ko. Ousmane Faye li mu war a yéen def na ko. ñun ñoo des. ngeen jéggal ma ko maa ngi gërëm Assane bu baax a baax a baax ak yéen ci biir maa ngi gërëm Assane bu neex a liggéeyal ku tee ku ma mën a dig ndax man dama ci Assane rek moo màgg rek su ma buuree mu daal ma ma dellu mu delloo si te loolu dama koy soxla ci maa ngi gërëm it Mbodj sama mbokk sama xarit sama combinaison. mën a conseil maa ngi gërëm nag ñun ñëpp suñu responsable muy sim daan naa xëy waaye bis ni ma taxaw fii ba campagne jeex barke yonent bi sees bu ma mën a dugg bu ne 6 heures de matin laa fay dugg 2 heures de lu ma mën dinaa ko def te lu ma mën dinañu ànd ñu def ba ma mën muy gagné dama Ousmane Faye mii ma waxaat leen ko wàcc na ak ñun te gis nga lu waaye waxati waxati nag gis leen nii nee na ñii man ñi ngeen ma jël si ñëpp ma jël si ma góor ni kon xamoon naa ne Ousmane damay jël ndax man góor bii damay jël kuy liggéey di nga def may jël kuy liggéey te doo boole wax moo gën lu tàng tàng bu gisee Ousmane dafa ne Ousmane yow rek la ko déedéet Ousmane ku mu toogal yow yaa yow la bëgg loolu la ñu koy liggéey bu baax tendance waxuñu tendance dama ni yéen xale yu jigéen ñi sol leen blouson yi yéen jeeg yi sol leen marinière yi yéen mami yi sol leen yi te wàccee col yi da ngeen xam ne nag dañuy xëy di wax di suul suba ba ngoon jot di liggéey na tuuti rek léegi tey bu ndax sa doom dina am dama ànd loo xam ne bu maa ngi gërëm yaaya bu Dapat murah como me eh, leader yi maa ngi nuyu ñëpp continuer leen eu waaw surprise eu mais du hasard ba taxaw fi não wax parce que defe naa ba may wax benn ñu doon não ba plus dix personnes defe naa ñu def toog suñu kër teewul nag ñun bennoo rek lañu Macky Sall lu mu wax loolu la ñu wax defe naa amul instant ba bokkul ci xale bi mën ma seede ak barka mais amul lu deful ci bennoo euh, maa ngi remercier sama leader Ibrahima Sow mi nga xam ne tey final laa bokk ak barka barka dañ mën na ma seede def naa fekk na démb fekk tey waaw defe naa ni loolu am na importance euh, comme li ñu wax rek euh, alhamdulilah ba ngeen xamee ni taxaw jot na parce que def naa ne ñun fi nekkoon def nañ lépp pour li am mais musta am ñu dem toog kon tey ba ngeen demee ba xam ni lii dafa war am ngeen def ko kon c'est à ma ne vraiment man moom nit de terrain la base bi laay liggéey te ci laa mos a liggéey fépp ma nekk maa ngi ci base bi liggéey. di mobiliser parce que loolu mooy politique mobiliser massifier ñëpp ànd waaw parce man école PDS laa bokk Fala jógee te xam nañ luy politique waaw ba léegi ci la ñuy waaw parce xam nañu ñëw na ci PDS bi ñëpp daal di gërëm ñëpp di sant yàlla bu baax a baax di ñaan yàlla tamit euh, ànd bi nekk ànd boo xam ne dinañu jëriñ daal ba ñëpp gis seen bopp te mu doon.

maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp di rafetlu teewaay bi waaye nag damay man la coordinatrice MPD liggéey commune Hann bel je suis fière de vous. donc même Marie ngi Adja Fall pour ceux qui ne me connaissent pas euh, wax dëgg yàlla yore kuréel bi tudd faire de l'émergence bokk ci Benno Bokk Yaakaar ci APR bokk ci cadre républicain donc modestement président Macky Sall bi mu le tànn cadre bu ko dem représenter Chine sur invitation du parti communiste chinois modestement sama de tuuti tous. Très Ousmane Faye ay qualité moomu fi bàyyi macha allah sama xaalis na Ousmane yaru fokk na doomu aadama Ousmane liñ naan ce qu'on appelle l'empathie c'est-à-dire être à la place de l'autre Ousmane fu mu la xoolee si bët xam na lan mooy sa soxla. yaakaar dafa bëri salle bii bu dégg du ma lim de mais am na ñoo xam ne formé naa am na ñoo xam ne defar naa fi fërëm mais benn loxo du yëngatu benn lam du yëngatu nañuy xàccandoo di doorandoo Adja Ouli Ba maa ngi lay ziar Adja Rama Ba maa ngi ah, yaa Seyda ziar la bu baax mais mention spéciale aussi à une autre dame grande dame muy Adja Khady Ndaw madame Ndaw. di nuyu sama sœur yi ma xam ne fii. Sanusi ak waa Kër Ngor moom seen waay la ñu moom nag sedd na si yéen di nuyu waa clé de l'émergence bu baax LHTB Fat Fat Ndiaye xeese ak ñoom fàllu ñi nga xam ne mënuñu yéeg ñi ëpp ñi nekk si biti ñoo raw ñi nekk si biir nag damay waxtaan tànk tànnuñu ci comme on dit wax tànn la tànk tànnuñu ci njëriñ boobu waxtaan amul njëriñ donc dama les lignes, ñaan solennellement encore Vous voyez def porte à porte visite de proximité Nous leen na amal njëriñ jeunes parce que jeunesse c'est l'avenir de demain lan moo vous fu nekk ni Sénégal le ñu bokk benn bokk yaakaar ñooy xale yi jaar Nicaragua di jaar ci Océan Bleu Océan Bleu ce c'est pas l'avenir du Sénégal Nicaragua c'est pas l'avenir du Sénégal Vous ñuy def porte à porte nañuy véhiculer le bon message vraiment comme ça au soir du 25 février. nous

kon nag dafa am devoir am lu ma wax ak ñi fi toog la commune est là lii mooy au plan politique et mun naa sur tous les plans ñi nga ya ne tey yàlla dogal na ñu ba ba a pour liggéey an belair air may ñaan lenn mooy dañu fàtte suñu bopp ndax ay ndaw lañu ñun nekk responsable comme yéen nekk ay leader comme yéen xam un um peu fu xam-xam nañu fa fu ngeen mën a dugg mën nañu fa dugg waaye suñu bopp ñu parce que ñun amuñu solo la commune d'abord Hann Bel-Air d'abord Yaraax d'abord maman yi d'abord suñu sœurs yi suñu frères yi nga xam ne dañuy dem di dugg ci mbeex mi di sacrifier seen bopp ci ay manipulation yoo xamante ne ay nit yu ñàkk caaxaan amuñu programme ñoo ko doon wax lolu nak la bëgg mu deñ pour mu deñ il faut ñu élire candidat bi nga xamné ne candidat idéal candidat solution candidat espoir parce que bientôt Sénégal fay dugg ci exploitation pétrole et gaz waruñu ko jox ko amul xam-xam waruñu ko jox ku loxom setul waruñu ko jox ku dalul xalé bu yor almet di fo ci mbokk mané ko talal yaa ngi dëkk bi da koy nax nangu almet bi parce que bu taalee taal réew ñun loolu la ñuy bañ réew mi du caaxaan buñ koy jox ku ne il faut ngeen ubbi seen bët ubbi seen i xel déglu discours yi waaye xool candidat yi d'abord ñaar fukki candidat la ñu am sa am na si ñoo xam ne candidat bu ci doxoon ñëw sa kër lépp la 2 millions doo ko lebal. bi da leen di nax mag nag bu tëddee njaaxaanaay di tuur ndox ne tooyu ma mu ngi nax boppam. candidat bi muy amadou ba ak kuko ko bëgg a mu gagner candidat bi nañ ko xamal ni comité électoral bi an be le reconnaître moy bi leader yi top ay parti ak ay mouvement ak ay plateforme ba mu 34 sa way ku bëgg gagner commune bi ñi ngay andal ku leen fi bayyi dem dañuy interpeller directement candidat bi du gagné an dañuy attaquer président Macky Sall ne ko ku la gëmloo ne am na beneen coalition bu gënoon a mag bii ci commune bi pour nga gagner Hann Bel-Air c'est dëgg kon loolu laa bëggoon a leeral rek jox le coordinateur comité électoral bu commune bu Hann Bel-Air monsieur Allô Merci beaucoup, Monsieur Guisset, vous avez la parole. asalaamaaleykum mbokk yi di nuyu ku nekk ci turam ak santam di am mbégte di jàkkaarloo ak yéen tey di mottali mission boo xamee ni am nañu ko ci commune bi merci di jaajëfal assemblée bi ci sen nangu proposition buñu len leen defar ci comité bi ndax lolu bu amul won fi ba 21h 22h mën nañ fa nek di waxtan poste par poste di yëkëti ay loxo di voter di xëccio mais li ngeen nangu par acclamation non seulement woné na ni ñun ñëpp ben lañu té may nañu ñu économiser temps tàccu len sen bop

te yàgg ngeen sonn kon bu fi nekk xam lu fa xew xam naa bu fa nekk surtout jigéen ñi ma coono te jóg en tant que leader à chaque fois jéem a taxawal pour corriger mais du dem fenn ndax day dem ba ci pression am nit yi dellu ginnaaw tey jii nii am na ça je vous le dis leen ko nëbb lu ma tardeel man maa ngi jégalu ci retard bi du sama coobere bopp ay appels yi bari nañu ay négociations yi bëri nañu ay naxant yi bari nañu mais ma ni leen loo leen bëgg wax loo leen bëgg def dina nekk après tey ndax lii lii taax lii caaxaan taxu ko am caaxaan taxu ko jóg duñu yëkkati ay magum jëm ay leader ku nekk ci parti am ci mouvement am ci plateforme am négocier ak ñoom waxtaan ak ñoom ba ñu egg ba fii ngeen toog fële jël seen téléphone ñu ne est-ce que mun ngeen toog ba ci kanam mënuñu ndax mënatuñu xaar lu ñu yëngal moo ñu ëpp doole mooy coono suñu askan bu loolu weesoo di leen xamal ni def nañu liggéey bu rëy lii ni yombul yombul mais lu gën a metti mu ngi ñëw suba gannaaw suba gannaawaat suba balaa campagne bi di commencer dina am ñu jóg di tas li di ñu jaar ci yéen militants yi dina jaar ci yeen leader yi ma len ko wax te dina am dina commencer buñu fi génné tay dina am ay appel yu len wo ñu né li du Benno Bokk Yaakaar ken du ko reconnaître man len wax ngeen deug li du Benno Bokk Yaakaar li wessu Benno Bokk Yaakaar ñu ni ma Ousmane Faye du responsable parti socialiste Anne Belair. Manilène, Ousmane Faye du responsable le PS à belair bel Moi, responsable Qui Yakar, yaakaar ni responsable Benno Bokk Yakar, ngi nii bu leen xeeb seen Bop, bu leen xeeb seen bopp benn que ku len woo di leen laaj di ne len wax len ak monsieur Guissé wax len ak Ousmane fay bu len tontu kenn bu len justifié bu len ils bu len ragal tay ku bëgg gagné commune bi fi lay jaar ku bëggul gagné nak mëno forcé nit bëgg gagné ku bëggul gagné na dem feneen ñun ñu Li la clé de la victoire de Ahmedouba le 25 février 2024 di am mbégte kanam toutes ces personnalités qui sont reconnues et reconnaissables partout Tibir Dakar ak ci Sénégal di kontaan bu di de lui aussi sama colère de rappeler mon engagement lii c'est un pacte ku ci génnul man ma ci génn Fatou Cissé maa ngi lay nuyu Ousmane merci jërë ngeen jëf jërë

mais wax dëgg dafa jot ñu wax ko ci benn président Macky Sall dégg ko ñu wax ko candidat Amadou Ba dégg ko ñu wax ko sama kilifa politique Aminata Mbengue jaay dégg ko du ñu ay ragal du ñu yox yoxi xeex politique ragal duñ ko dëgg fu ñu fekk fa la ñuy bàyyi fii ay magum jëmm ñoo fi nekk lii du caaxaan montage comité électoral bu Melni, je défie le Sénégal je défie les responsables de Dakar Nous def la même chose C'est une gox alors su que Ousmane Faye du responsable parti socialiste tout bien, non mais nous, nous sommes ñuy sonn du pourquoi depuis deux jours nous avons nelawuñu ñu ngi woote di def pression donc ça veut dire que lu ñuy def am importance sinon kenn du ñu woo du sonal donc nañu dem tëdd nelaw ici c'est Anne Bel-Air c'est pas Yoff c'est pas Parcelles Asseni. ñooñu ñooy lobbying nañu gagner cette gorge d'abord balaa ñuy ñëw di gorge goxu Jambu. avec Ousmane Faye Anne Belair dootul des c'est terminé c'est fini kenn nous wax lu ñuy def ñun ñoo toog réfléchir xam ne gisuñu suñu bopp si lu ñu doon proposé ñu ne loolu dafay dàkk day changé ñu jël suñu responsabilité woote teg suñu comité électoral pour gagner l'élection. ici.

Pedro kenn du leen ko xelal lu muy def ko ci biir APR xeex li nga xamante c'est pas normal boo nekk fële sa commune mënoo ko gagné nga ñëw di ñu imposer koo xamante ne moom ñu dirigé. bu la nangu loolu combat boobu la é? seexoon ba tey ci lii dëgg rek mooy mujj li mooy dëgg bu leneen donc dooleen leen ñu si loolu.

ñu def folklore ñu def waxtaan ak askan bi wala leen ne le choix de Amadou Ba c' est le meilleur choix pour le Sénégal Amadou Ba am na compétence si yar ko xam kuy wut ku yaru soo gisee Amadou Ba nga xam ne ko yaru moo tax ñu ko il a les compétences c' est un homme d' état Macky Sall bàyyiwul ñenn bàyyiwul ñëpp ñu tànn ko pour rien parce que Macky Sall pare na ci. Ah donc nous gëm yàlla c'est le meilleur profil pour le Sénégal Le Sénégal c'est Le jëm dafa le ku dal dafa soxla le am expertise dafa façon le am yërmande c'est askan bi C'est gis candidat donc buñ ci dute nañ ko défendre avec fierté nous buñ nëbatu nañu def ay affiche dugg si kër que wax nit ñi wax c'est le meilleur profil pour le Sénégal su ko defee moi je vous promets la victoire parce que lu mu vraiment je remercier l'ensemble des leaders je ne vais pas citer parce que si maintenant, donc je remercie tout le monde de mobilisation ñi est ci le travail commence maintenant. l'un de préciser On réunion que pas mal, Les comité choisir si Paul le pôle yooyu changé parce que da amoon nañu liste moo tax ñooñu limuñu seen tour si mais ñooñu nañu reconnaître que pôle yi ñu leen inscrire foofu la ñuy jëm directement donc loolu laa bëggoon préciser pour bañ a am frustration di leen sant di leen gërëm di remercier encore une fois de plus suñu doyen jërëjëf merci beaucoup Yan. Wow. Imam. Aywa, ay, nhau nhau. Muy bien. Lai lai la da. Ah, la nueva. Ah, animación aquí. Ay, no tú que vai. Aló, aló, maña, aló. allo allo waxal animation mu may ñu way allo allo allo ay waay may day na nañu way allo allo allo beneen bi daal. waaw merci.